إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ay yéen mbokku jurit yi ñu ngi sant yàlla suñu borom bi ñu baaxee may ñu alal yoonalal ñu ñu koy dépensé ci loo xam ne danañu jural njëriñu adduna waaye jural ñu njëriñu allaxira gannaaw ba mu dig ñu ci na alal jooja luñ ca dépensé danañu ko wuutalal ci adduna ca du ñu yàqal dara ca pay ga ca allaxira ñu ngi seede ne kenn yeyeewul ñu koy jaamu ku dul moom mboole mi xéewal yu nekk ci jaamam ci moom kese la jóge ñu ngi seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la woon di yonent bu mu yónni ci ñun yàlla yàlla julli ci moom ak njabootam ak ña koy roy ba ila yomi din ay yéen mbokk jullit bi ngalla way na ngeen ragal yàlla te ngeen xam ni lii nga xam ne mooy zakat mooy ñetteelu ponk ci ponku lislaam di ponk yu mag sunu borom yoonal ko ngir laabal suñu bakkan yi yoonal ko ngir laabal suñu alal yi waaye yoonal ko ngir développer suñu réew yi loole doon njëriñ ñeel ña am waaye doon njëriñ nit ñeel ña nga xam ne dañoo néew doole sunu borom yàlla wax ak ab yonentam ne ko jëlal ci seeni alal zakat boo xam ne da nga leen ca mën a fuli yokku leen ca ca nga leen di ñaanal heure boo jëlee ci ñoom zakat ndax ñaan yooyu nga leen di ñaanal loolee dafay doon ak dal ñeel leen loolu kon mbokku julit dana tax ba yow mi nga xam ne yaay jullit nga xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala julli gi nga dëkk di ko def suba ngoon borom bi yàlla moo ko farataal muy jaamu yàlla bu sa jëmm ji di def waaye noonu mu la sante jaamu yàlla sa jëmm noonu la la sante jaamu yàlla ci sa alal alal jooju lan mooy jaamu yàlla mooy zakat ba nga xam ne danga ko cay génne moo cay farata sarax yeneen yi doon ci ay naafila sunu borom yàlla subhanahu wa taala lënkale zakat boobu ak julli ko mel ni ibnu abbas radiallahu anhuma mu ne ñetti mbir yii day sunu borom yàlla lënkale na ko du ci nangu benn lu dul ne da nga koo booleeg ba ca des mbir bu njëkk ba mooy topp leen yàlla topp yonent yàlla koo xam ne da nga ne man yàlla lay jaamu waaye sunna yonent bi sama yónnewu ci sa jaamu yàlla googee yàlla soxlawu ko gannaaw ba mu ne na ngeen taxawul julli joxe zakat képp koo xam ne doo manki julli waaye zakat moom faalewuloo ko naka noonu it sunu borom yàlla faalewul sa julli googee ñetteel bi mu ne na ngeen jaamu yàlla ca rafetal jëm ci way jur yi képp koo xam ne yaa ngi jaamu yàlla waaye di ñaawal jëm say way jur xamal ne sa jaamu yàlla googe yàlla soxlawu ko ay yéen mbokk julit suñu delloo ci téeréb yàlla bi dañuy fekk juróom ñetti fukki yoon ak ñaar sunu borom mi ngi lënkale zakkaat ak julli bal dem ba sax ba ni jaami yàlla yi de sant ñu leen lu dul ñu jaamu yàlla bañ ko bokkaaleeg dara taxawal julli joxe zakat lii de mooy diina bu diina bu jëbba loolu tax na ba mbokk julit kii nga xam ne moom mooy abubakarin sadiq radiallahu anhu bi fi yonent bi alayhi salaam jógee dafa am ay giiri arab yoo xam ne dañ daan indi seen zakat ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam léegi nag yonent bi faatu na ñu ne ñun kat suñu zakat yonent bi lañ ko doon jox faatu na duut ñu ko jox keneen Abubakar takk xare ànd ak jullit ñi ne day dem xeex ak ñoom lenn ci ñoom na ko ah mais yow Aboubacar mais ñoom ñi ngi wax laa ilaha illallah ñoom ñi ngi julli mu ne wallahi danaa xeex ak képp ku bëgg a teqale diggante julli ak zakat wallahi benn bëy bu gën a ndaw buñ doon jox yonent bi alayhi salaam buñ ko teggee ci zakat bi danaa xeex ak ñoom ba jël ko ci ñoom loolu yëpp mbokk nekk hadis yu wér yu borom xam-xam yépp nangu mbokk zakat mi ngi nii mooy wone matu gëm yàlla jaam bi di mandarga texeem adduna di mandargay dara jaam yi gën a kawe ci àllaaxira sunu borom yàlla ne texe ne day julit ña yàlla waxul julit ña texe nañu waaye daa jiital texe ga qad aflaha almuminuun dëgg dëgg texe na julit ñu gëm ñu ne ko ñooñu mooy ñan mu ne mooy ñi nga xam ne dañuy toroxlu seeni julli di moytu léppi caaxaan waaye alal dañu am dañ koy jël di joxe zakat mbokk suñu borom ba mu paree seeni melokaan daf na ñooñu day ñooy nar a doon firdawsil aala di àjjana ba gën a kawe ci kaw biir àjjana yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ca ñooñee waaye naka noonu mbokk julit noonu suñu borom béggalee at yi ñuy génne zakat noonu la tëkkoo képp ku yàlla baaxe jox la alal ca doo ca génne zakat sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ñi nga xam ne ñoo ngi denc alal jëma leen wërsëgal ca duñ génne zakaatu alal jooju yowmal qiyaama daañ ko jël soppi ko ay fer à passé tàngal ko ci biir sawara ba mu tàng ñu koy dóor ci seen jëya di ko dóor ci seen wet ya di ko dóor ci seen dënn ya naan leen mos leen lii day mooy alal ji nga xam ne dencal ngeen ko ci génn wu leen ci zakaat su ko defee nga la waay mbokk julit xamal ne zakat yooyu dafa am ay façon yu bëri am ay masala yu ci aju heure bu la yàlla baaxee ci lenn ci alal na nga jege ka nga xam ne jàpp nga ne mën na la caa ubbee mu leeral la naka ngay génnee zakatu alal jooje te xam nga te lu mën a doon ci jaamu yàlla day ànd ak xam-xam kon nga xam fooy génne zakat xam fooy jëme sa zakat gannaaw ba it nga la way muñal zakat boobu nga génne ko te xam ne génne gi nga koy génne day sant yàlla la te suñu borom yàlla nee na bu ngeen ma santee day dinaa leen dolli su ko defee mbokk zakat te saanam moo nekkoon di ko génne ci or pur wala xaalis pur mooy xaalis yi ñuy takk ci loxo ak i tànk waaye gis nañu ne loolu am nañu ko am ba tey képp koo xam ne yàlla wërsëgaloon na la nga am quatre-vingt-cinq grammes ci or or boobee da nga caa war a génn zakat or boobee da nga caa war a génn zakat loolu muy jigéen joo xam ne lam denc ci or benn jubluwaay kese la ca am ca ma koy da koo denc rek ngir takkaay waaye jubluwu ca denc alal su dee da ngaa jublu denc sa alal ci or boobee da nga caa war a génne zakat amma bu dee ne jubluwoo ca denc alal nag da ngay gis ne ixtilaaf am na ca looloo tax moom kenn du la ca forcé nga cay génne zakat loolu la ñuy wax ci ki dencoon lii nga xam ne moom mooy xaalis piir ba amoon ci lu jóge six cent grammes doonte ne mbokk gis nañ ne tey jii li ëpp ci doomu aadama yi lii seen alal ay billet de banque la loolee tudd ko dollar la CFA lu mu mën a doon ci Europe sunu borom yàlla subhanahu wa taala heure bu la ci wërsëgalee loo xam ne mën nga caa jënd kemu ka nga xam ne bu yoroon or wala xaalis da koy jënd xamal ne zakat war na la ca loolee mbokk bu dee zakat ba ngay jënd ca or quatre-vingt-cinq grammes or dana xaw a cher ndax oru vingt-quatre carats lay doon boo xam ne kenn liggéeyu bu ko loolee dana nekk romb un million un million cinq cent jëm kaw waaye bu dee zakatu xaalis bi moom nekkul lu cher ba nga xamee ni nii heure bu la yàlla wërsëgaloon trois cent mille nga denc ko ren ba déwén nga la way la gën a mucc ayib ci yow mooy génn ca zakat lu bari ci borom xam-xam yi loolu la ñu ubbee léegi ngir écart ba nga xam ne am na ca or ba képp koo xam ne mënoon ngaa dem tey ca dëgg ba jënd fa 600 grammes ci xaalis bi ñuy takk ci loxo te loolu en général boo amoon 300 à 325 mille francs da nga ko am boo ko dencee ren ba déwén ngal na waay xamal ne zakat war na ci alal jooje loola it lañ lay wax te bu dee ne da ngaa leble woon ay bor nga lebal ko koo xam ne boo la ko woon tey jox ma sama xaalis mu daal di la koy jox ngal la way xamal ne zakat boobu bor boobu da nga koo war a considérer ci zakat bi génne ko zakat amma bu dee dafa nekk ci koo xam ne moom kat ah nekkul ku am wala contrat boo xam ne da ngeen noon fii cinq ans wala six ans lañ koy fay su boobaa heure boo jotee bor ba nga koy doon di ko génneel zakat gannaaw loolu mbokk jurit bépp alal boo xam ne daa juddoo ci alal ji nga yoroon su boobaa dañ koy génne zakat kenn du ca xaar moo am at masalan tey amoon naa un million di ci génne zakat waaye yàlla dogal ci biir ay weer rek ma jëndoon benn oto ci un million wala bëcc ko jaay ko muy deux millions kon un million de bénéficier daanaka un mois la def ci man waaye zakat day war ci loolu loolu itamit mbokk julit bépp alal boo xam ne da nga koo jënd gaaral ko di ko jaay loolu la ñuy tuddee marchandisum jaay loolu zakat da cay war yow mi nga xam naa yor sa bitik yow mi nga xam ne yaa yoroon loo mën a jaay zakat boobee da ngay gis ne loolu da cay war ki jëndoon ay ganaaram di jaay duñ ne ko ne yow ganaar zakat da caa war ganaar boo ci amoon un million it boo ko jaayul zakat waru ca waaye bu dee dañ koy jënd di ko jaay su boobaa day nekk marchandise su boobaa la ca zakat di war ka jënd ay otoom di jaay loolu lañ koy wax ki jënd ay machine am di jaay loolu lañ koy wax ñoo lépp loo xam ne yaa ngi koy jënd di ko jaay loolee moom da ngay gis zakat da cay war am naa la nga jënd pour jëfandikoo mooy kër gi oto bi tool yi ak lu mu mën a doon nga xam ne yow jëfandikoo tax nga koy jëfandikoo su boobaa da ngay gis ne moom zakat waru ca lu dul ne bu dente ne da nga koy luye oto ba ngay luye wala kër ga ngay luye ak yu demee noonu su boobaa la nga am ca location ba booy génne zakat moom ngay booleeg la nga xam ne jotoon nga koo am ci alal dana nekk benn léeg-léeg ki nga xam ne alalam day ñëw nank nank masalan salarié bi salarié bi nga xam ne weer wu dee mu économise cent mille francs masalan tey jii mi ngi war a génne zakat naka lay def bii am na fi douze mois mais bii huit la am ba cinq la am mbokk mboolem salaire bu fi defagul un an zakat waru ci waaye la gën a mucc ci ayib gën laa noppal mooy nga xool benn mois ci at bi bu jotee nga xool li nekk ci say compte yépp nga génne ko zakat noppalu wat ba déwén ndax lii jot am at génn nga ko zakat pour moom jeex na amma li amagul at nga génne ko zakat loolee du wàññi dara bal ak jaamu yàlla la buy dawleeku li bon mooy lu tarde zakat waroon a génn zakat bàyyi ko ay un mois deux mois amma weer wii di ñëw laa waroon a génn zakat nga gis sabab bu tax nga mën koo génne léegi loolee da ngay gis ne dara ñëwu ci bal coono bu metti mas na dal lenn ci sahaaba yonent bi alayhi salaam dajale zakatu abbas ñaari at daal di ko jox fuqara yi ngiree kon déwén du génn zakat ay yéen mbokk julit xam leen ne zakat boobu itamit suñu demee ba koy génne suñu borom yàlla day bàyyiwu ko ci bànneexu nit ki rek mu xool fu mu neex mu dugal ko fa dal suñu borom daa ubbi juróom-ñetti compte ne dugal leen ma ko fii ba ca jiitu mooy fuqara yi ñi nga xam ne kat la nga xam ne mooy la ñuy war a taxawee te war koo dëkkee war koo woddoo war koo dunde seen liggéey ya ñuy liggéey mënuñu ko caa am tey jii da ngay gis lu bari ci salarié yi ci cas yooyu la ñu nekk waa ji nga xam ne salaire am tey jii bu ca fayoon location am daanaka dépense yaram du mag waxuma ay facture courant ku mel noonu même bu dee dafay liggéey waras na koo mën a jox ca zakkaat ya gannaaw ba miskin bi nga xam ne moom amul fu muy fàggoo ku mel noonu it da ngay gis ne waras na koo jox ci zakat bi ña nga xam ne ñoo ciy liggéey di fonctionnaire yay dajale zakat naka noonu waa ji nga xam ne dañoo gis ne kat moom xemmel na lislaam lool te buñ ko joxoon ci zakat bi dana am lu mu dëgërloo ba mën a dugg ci lislaam dund ko ku mel noonu des na ko jox ci zakat ya naka noonu bu doon jaam bi nga xam ne dafa ñëwoon ab sangam ne ko man kat soo ma joxoon temps gore ku mel noonu waris na koo mën a jox ci zakkaat yi ngir mu gore gannaaw ba bor ya nga xamee ne nii farataa taxoon jàmm bi lekk ko waxuñu bor yoo xam ne oto tax ak bor yoo xam ne décor ba ngay décor a sëkk rek bor yoo xam ne ngir puuk rek ca làng gaab déedéet waaye bor boo xam ne xëy na ngir faju bor boo xam ne xëy na ngir am loo dundee ak yu demee noonu ko mel noonu wares na koo jox ci zakat bi naka noonu it waa ji tukki woon ñëw ci réew mi tumuranke ci amul benn moyen bu mu mën a jokkoog réewam ba ñuy nekku xaalis ku mel ni de wares na koo jox ci zakat bi suñu borom mu ne ñii laa joxloo zakat ñii ñoo ko moom te yàlla mu ne mooy ki xam mooy ka nga xam ne mooy ki xereñe loolu moo tax ba yow mi nga xamee ne yaa génne zakat war ngaa jéem a xool ba xool ne ah kii kat moom war na koo yeyoo su ko defee nga jox ko bañ koo jox ci ngir xaritoo ngir mbokkoo mais nga xam ne yow moomoo ko yàlla moo ko moom te dafa am ay foqoraawu ju ko ñoom heure boo ko joxee bu ko moomul rek xam nga ko ku ko waroon a moom loolee kon ña koy joxe bàyyi ci xel bu baax waaye ngal la waa yow miñ jox zakat ca yi nga yëg sa bopp ne man mii kat yàlla baaxee na ma dëgg dëgg yeyewu ma di lekk zakat ngal la waay zakat boobee jël ko nga jottili ko keneen koo jàpp ne kii kat yeyoo na ko ca bañ koo lekk te xam ne heure boo ko lekkee lekk nga ak jàmbur ngal la waay na ngeen bàyyi xel ci loolu bu baax zakat boobu ñi ca gën a yey ñu jox leen ko mooy say jege ñaale sunu borom mu ne aji jege ñaale yi day ñoo gën a yee ci ñu gën a laayante ñoom ci biir yeneen ci bàyyi salaam ne ko ne sarax boo xam ne da nga koo jël nga jox ko ki nga xamee ni nii ab miskin la boo bëggulul dara loolu de sarax la bu yàlla nangu amma boo ko joxee sa aji jege ñaale yàlla dana la bindal ñaari cër mooy cëru sarxe nga waaye cëru jokk nga la nga xam ne mooy say mbokk ay yéen mbokk julit xam leen ne zakat yàlla da koo indi woon ngir déséquilibre bi am ci société bi ay ñàkk yemoo gi ci am loolee zakat bi mën koo régler bu fuqaraaw yi am luñ jàpp loolu tax zakat kenn du ko yóbbu di ko tabaxe ay jàkk kenn du ko yóbbu di ko jënd ay makka ci jàkk wala di ko jënd ay kaamil alquran wala yu demee noonu dal la nga xamee ni nii moom lañ koy jox mooy fuqaraaw yi ak masakin yi ak li yàlla jox loolu tax ëpp na ngay jël sa zakat di ko jox yenn ci fondation yi nga xamee ne nii seen jubluwaay xëy na mooy tabax ay école ki nangam ak nangam ak nangam loolee déedéet su ko defee même am na fi benn fonds sénégalais de la zakat boo xamee ne nii lu bari ci imam yi wax fii ci la ñu bokk loolee da ngay gis ne ñoom ah naam fondation la boo xamee ne nii lépp loo xam ne ñëw na ci ay ndimbal dañ koy teqale lii zakat ñoo xam ne lii zakat la fuqaraaw yi ak masakin yi ñoo ko moom am naa yeneen doo ya nga xam ne dañ koy jot loolee la ñuy dugal ci yeneen jubluwaay yi ay yow mbokk julit li nga xam ne moom mooy zakat boobu ngay joxe la ca nekk ci ay ngëneel day bari na nekkul loo xam ne lu ñu mën a peegal la waaye xamal ne julit bu ne war naa ñaan yàlla bokk te ñuy joxe zakat islam juróomi ponk la julit bu nekk war naa ñaan yàlla barey dee matal ponk yépp donc bu njëkk ba mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah jàpp naa ne ñun ñëpp ñu ngi ci loolu ñaareelu bonk ba mooy taxawal julli jàpp naa ne ñun ñëpp ñu ngi ci loolu ñetteel ba mooy woor weeru koor jàpp naa ne ñun ñëpp ñu ngi ci loolu waaye mbokk bokk na ca itamit génn zakat bokk na ca ak makka ñaar yooyu mooy mottili juróom ya ñun ñëpp bala ñoo faatu yal na yàlla boole ñu ca ñaka matal ay yéen mbokk julit zakat boobu joxe bi nga koy joxe dana rocc ci yow jukko bu bon bu doomu aadama yi bañ te yàllaa ko gën a bañ muy nay ki nga xam ne am na aada woo ji génn zakat masalan tey jii waa ji nga xam ne un million rek la gardé woon waaye zakat gi nii mu dem na texee vingt cinq mille dem jox ko fuqaraaw yi ku mel noonu ëllëg gi si biir may ak junni wala ñaari junni du doon dara ci moom loolu tax da ngay fekk ñi gën a tabi ci jaamu yàlla yi mooy ñooñu yàlla baax ñuy gën a zakat nga la waay yéen mbokk jullit yi xam leen ni li nga xam ne mooy gën a zakat boobu dana doon luy dalal xelu fuqaraaw yi ñu jàpp ne jafe-jafe yi ñu am kat ah mën na am de yàlla mën na maa baaxe benn jullit mën naa dimbali ci zakat ba sama bor bi nga xam ne xoomu fu ma koy fayee ba sama aaji bi xoomu nu ma koy sottale yàlla dimbali ma ba mën koo matal ci loolu noonu it la ñuy gis ne lu bari woon tey jii ci ay agresseur ak def na ko su dul noonu mën na am buñ leen nemmeeku woon ci zakat bi dañuy gis ne kii am alalam jox di leen ci jox zakat dañu woon buti ko mukk di ko yàqal la nga xam ne ni mooy liggéeyam boobu la nga xamee ne mbokk julit zakat dana ko def te li nga xamee ne it mooy sarax ca la bokk nga la way gëmal ne heure boo génnee zakat wala nga génne sarax yokk nga sa alal yeneen bi alayhi salatu wasalaam nee na ñett yi de maa ngi leen koy garantir amul benn sarax buy wàññi alal amul kuy bale ci toon jëm ko toon lu dul yàlla gën a yëkkati ay darajaam mi ngi noonu naka noonu itamit amul loo lenn loo xam ne nii doomu aadama bi dana ko def di suufeel boppam te yàlla rek a tax lu dul yàlla subhanahu wa taala dana ko yëkkati mbokk contraire boobu it mooy contraire ba koo xam ne nii da ngaa yor alal doo ci génn zakat doo ci joxe sarax sunu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn bis buy fenk lu dul yàlla dana yónni ñaari malaaka kii li muy wax ba baa jant bi di so ay yàlla si bépp jaam bu waroon na def fa mu war a def mu lànk bañ faa def yàlla na nga teg ci moom ay coono ak i tolof tolof benn waaye ngi waroon a génne cinquante mille franc zakat mu sàgge na ko nay bañ koo def balaa at mee jeex yàlla natt ko ci ordonnance lu jege trois cent mille franc bal yàlla yàqal ko ci alal loo xam ne mat na cent fois zakat mu waroon a zakat ca loolu yàlla nettali nañ ko ci téeréem bu tedd bi benn góor bu baax a ngi nii heure bu masan bay toolam day génn zakat bi joxe fuqaraawu yi ba mu faatoo ay doomam daal dina ah waay bàyyi daal dafay font rek nan gaaw a dem góob tool bi bala koo miskin yaa yëg ba ñu dogoo ci loolu ca gudd gañ dogoo ci loolu la yàlla taal seen tool boobee ku ci bëgg lu leer ne dem jàng suratu noonu naka yàlla subhanahu wa taala di waxee inna balawnahum kama balawna ashaab aljanna loolu tax mbokk duñ la wax ne bépp julit bu yàqule rek dafa génnewul zakat déedéet yàlla dana nattub julit waaye xam leen ne yàqute yu bëree bëri la koy waral mooy ñàkk génne zakat ba nga ñàkkoon a génne wala ñàkk dimbali ka nga waroon a dimbali ci say mbokk ci say jegeñaale loolee mën na laa jural yàlla teg la musiba boo xam ne dana ëpp loolu téeméeri yoon su ko defee mbokk bokk na la gën a màgg ca la nga xamee ne nii mooy génn ay zakat ak génn ay sarax da koy joxe ci loolu moo di ne ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala wala boog xadis boobu walaa jeexit yonente bi alei salaam nee na beneen malaaka ba la muy ñaan ba baajant bi di so ay yàlla sa bépp jaam bu dépensé ci foo xam ne war na fa dépensé yàlla na nga ko wuutalal lu gën loolee gannaawu mbokk julit yonente bi salallahu alayhi wa sallam day nee na lii day ngalawaay jàpp leen ko képp koo xam ne yaa ngi sax di def lu baax ci jaamu yàlla yi yàlla dana la musal ci déegu ñaaw mbokk déegu ñaaw du ne camion daa jaar ci kawam def ko ay sagar waaye déegu ñaaw mooy nga deeyaale ci loo xam ne merom yàlla ma nga ca yàlla yàlla musal ñu ci gannaaw ba yonent bi alayhi salaam ne li nga xam ne mooy jokk ay mbokk day dana barkeel dundu doomu aadama gi yokk ko waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na sarax bi ngay génnee ca yàlla dong dama ko yëg loolee dana fay mer moo xam ne yàlla mere woon na ko ab jaamam ba baal ko ci ab bakkaay bakkaaram am naa la nga xamee ne moo gën a màgg loolu lépp mbokk di ñu xaar yowmal qiyaama moo dina yowmal qiyaama heure boo xamee ne dem nañu fa bépp jullit boo xam ne yaa ngi doon jox ay sarax sa ker dañ lay keral yowmal qiyaama place ba ngay nekk nañ koy kerale dana dépendre ca sarax ya nga xam ne moom nga doon joxe bal yonent bi alayhi salaam nee na juróom-ñaari nit ña yàllay keral yowmal qiyaama dana ca bokk ka nga xamee ne nii moo jëloon ay saraxam di ko joxe ca fekk ne kenn yéegu ko ku dul yàlla ndax suñu borom yàlla kat nee na zakat bi boo ko génnee joxe ko même bu ko nit ñi yégee loolu baax na waaye la gën a baax na nga wéet ak fuqaraa bi jox ko ko yonent bi alayhi salaam nee na loolu bokk na loo xam ne lu lay keral yowm alqiyama yal na yàlla wërsëgal ñu alal ju ñu génne zakat yal na yàlla wërsëgal ñu alal ju ñu génne ay sarax yal na yàlla subhanahu wa taala musul ñu ci nay yal na yàlla laabal ñu laabal suñu alal yal na yàlla wàcceel ñu jàmm suñu réew yal na yàlla defal ñu aafiya defal ko julit ñi fu ñu mën a nekk ci kaw suuf yal na yàlla musal ñu ci fitne guerre yi nga xam ne moo nekk ci kaw suuf yal na yàlla rafetal suñu mucc yal na yàlla teete suñu njaboot ila sirati mustaqim yal na yàlla defal ñu àjjani الفردوس مسلم وجواي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين